تفرقنا الأداء وزكوا البلاء به وأنينا الحسب بعد انتفى الجدب سفرنا به ممن هدانا تلاخيا بجاء الذي أمده قد هداد به عليه صلاة الله جل جلاله يا صاحبي نالي أفضل إسبي آمين عليه سلام الله إما دام مصطفى wama mawla bi ya saba san la moo tax man ma doon sa bàyyi faal faw ci baatin faal lampu may suturaal xemeem la moo man ma doon sa bàyyi faal Seex Ibra faal maami Seex Ndigal faal faw ci baatin faal lampu may suturaal Seex Bamba nee na bëgg mam seera faal ngir li ma bëgg baa ngeen bëgg seera faal ngir li mu ko bëgg wala ngeen bëgg seera faal ngir bëgg maa bëgg bismillaahi أحببت رب العالمين مع الأمين لوال